ay ci alaaji kàddu gaa ngoog macha allah ajaratu betimbo variante espagnole ah, ah. ñu ngi lay nuyu di la di am mbégte ak kontante di nuyu ñëpp ñi nga xam ni ñi ngi ci plateau bi macha allah di wax ni variante espagnole bi day na waar ñi ngi ci rubrique bu mag bi nga xam ne moo lay wax pajum cosaan ñu ciy ànd ak Cheikh Bara Ndiaye borom def gis ñu fas yéene waxtaanee lu am solo jëm ci wàllu actualité Sénégal di ko ci déglu di ko ci xaar waaye itam nee naa leen tey ca cappaandawu émission bi dana am loo xam ni di ngeen ko gis muy ab kéemtaan boo xamante ni bii am na lu fi xew loolan la danañ ca ñëw ca kanam waaye dañ koy nuyuwaat moom Cheikh Bara Ndiaye borom def gis Cheikh Bara ñu ngi lay nuyuwaat. ahousubillahi min asheytaan irajim bismillahi irahmanirahim wasalatu wasalaamu ala rasulillah wala alihi wa sahbi man fala taalamu nafsun maa uxfiya lahum min qurati ahyunin jasaan bi ma kaanu yaxmaluun maa ngi lay fay alaaji sanjoogu di nuyu ñu ñu bokkal plateau bi ak ñi ñuy seetaan ci biir réew mi ak bitim réew yëpp di jiital ci nuyoo bi cheikh mouhamadul muntaxa xalifa général de murit ak mbooleem njabootu tarixa yi fi nekk yëpp te waawoon njaasaan Léona ak euh, njabootu Cheikh Cheikh Macky Niass Mahi Niass bu Cheikh Alaaji a Niass di nuyu sama wasilaw bopp Cheikh Mouhamadul Moustapha ibnu Cheikh Sidil Makhtar ak bi soxna May Mbàkke bintu Cheikh Sidil Makhtar di nuyu bu baax Serigne Habib ak Serigne Cheikh Ndiaye Serigne Asfal mu Serigne Sidil Makhtar ak mboolem njabootu Serigne Sidil Makhtar di nuyu nag Alaaji Abdou Assis Guèye euh, ak euh, maître Mame Adama Guèye maa ngi nuyu bu baax Mouhamed si Jaxate ca Amérique ak soxnaam Koura ak euh, maire Diop yaayom yaayu Mohamed Jaxate ak Yaqooba Jaxate di nuyu alaaji Manir Ñang ak euh, ñëm ak Lamine Touré Amérique ak mbooleem ñi ñuy seetaan daal ci biir réew mi ak bitim réew yëpp jërëjëf Cheikh Bara Ndiaye borom def gis macha allah xam naa ne dañuy dugg biir assemblée nationale waaye balaa ñuy dugg ci la nga xam ni moo tax mbiri bi jóg euh, muy xeexu mbiri mbiri bi mbiri si la bi mm. xeexu mbiri si la bi noo jàngatee cooki bi nga xam ne Mbéri la mi ngi ko doon cooki ak Ousmane ko yow bi nga déggee xeex bi yow noo gisee xeex boobu. non non xeex bi loolu loolu saa loolu garaawul moom. Mm. xeex moom xeex ci mbedd mi moo ay waaye ensemble moom. Mm. mbooloo ma fay daje ak tension bi fay nekk. Mm. kenn ku nekk li la ñor nekk nga koy dox. loolu moom c'est normal xeexam fa loolu moom amul problème. waaw waaw léegi da ngaa bëggal Sonko romance wala. non Sonko. romance. Ah, yow kan moo <laughs> mbëri kañ lañ war a laaj. ah déedéet Sonko daal bu bëggee ramasse moom. non non non Cheikh Bara mbëri a ana ana daal la. mbëri. ah mbaxana ma. non loolu garaaw mbub ma. non loolu moo tax nga yaakaar nañ koo gañe. ah non xam nga yow yow xam nga man Njaamur laa dëkk. Njaara ah. Njaara laa. Ah. ñun waa Njaamur balaa ñoo xeex rek ñu summi suñu garab bu buy teg ko ne. <laughs> non dañuy summi bu buy de bu buy teg ko ne doo ko xeex de waaye man man moom bala maa gëm ne Sonko gañe Sonko na indi vidéo bi waaw <laughs> ah, sama papa jooju moom ah. maa ngi koy siyaare eh, di siyaare njabootam yëpp waaw ah. waaye daal moom Sonko daal moom bunta ñëw fii yàmbur yàmbur daal balaa xeex day summi daal moom xeexu booy Dakar la xeex xam naa moom du summi ko xam booy Dakar yi moom seen xeex daa gaaw mais affaire bi amul vidéo <laughs> waaw affaire bi moom non mais noonu la <laughs> jërëjëf Sonko daal bu bëggee ñu ma jox ko victoire bi <laughs> ah, ah, waaw na fi indi vidéo buy wane <laughs> ah. ne moo gañe bu gañewul na léegi suñu victoire la <laughs> d'accord jërëjëf Cheikh Bara macha allah am na solo Cheikh Bara nag ñu dugg nag ci li nga xam ne moo waraloon mbir mi ba tax la fay xew-xew Euh, muy li nga xamante ni bii moom la ñuy wax euh, projet de loi bi nga xam ne daanaka def na sénégalais yi daanaka ñun ñi ñëpp boo sàgganu sax ay terroriste lañ parce que sax sànq kii euh, jox nañoo jàppee ni loolu sax terrorisme la voilà parce que tax na Fatmata Seye xamati que loolu lépp ci terrorisme la jëm léegi daanaka terrorisme moom Cheikh Bara dafa yomb waaw parce que béti bi terroriste la noo gisee projet de bi nga xamante ni bii moom la ñu kii noonu Cheikh Bara waaw procès bi day maanaam lu mat a taxaw la mat a jàngat ndax euh, yaakaar naa àdduna moom makki Sall bu sañee nekk ca pale ba toog fa man mii ñemewumaa dem ba pale ma daal di fekk banque ba muy toog ma toog fa di joxe ordre yaakaar naa ay loi moo moo moo tee lool ma man ko waaw moom ay loi ko ko man mm-hmm. kon yaakaar naa benn organisme rek bu am ci Sénégal gii ak ci àdduna bi yëpp rek mm-hmm. maanaam ay loi ko def waaw kon nag bu demee ba ñu gis suñu loi yooyu ñu di ko coppat coppatee. Mhm. dafay daal doy waar loi bi nag. waaw xam naa ne mën na maa wax ne comme ñun ay wolof lañ. man bi ma déggee ñu ne am na loi buy dugg. dama ne lu loi bi wax. Mhm. ñu wax ma ko ba mu leer ci sama bopp nañ. leer na. ma daal di laaj nag ma xam ma doog a dawal samam xel nag. Mhm. lu tax lu wax jii ñuy wax lu tax ñu wax ko. li tax ñu wax ko nag gis naa ci ñeenti mbir yu bokkut. ñeenti mbir. yu bokkut. lu mel nan benn bu njëkk bi. mooy euh, maanaam warteef la. maanaam hmm. obligation la ci Sénégal ci ay hmm. kuréel yu mbokk. Hmm. yoo xam ne. dafa encaissé xaalis ba noppi. wax ak ñoom ci dina xeex terrorisme. kooku il obligation la. lam encaissé maanaam avance bi mu jël mos a du bëri. loolu moom am na ci loi bi. deuxième bi ci des mooy. récompensé. récompensé maanaam fay bor. am na ci. fay bor am na ci loolu dinaa ci ñëw. c'est vrai su may wax ci des mooy damaa dégg tubaab bi ci des duma maanaam maanaam préparé sam noonu. Mm-hmm. bu mel ne Ousmane Sonko. Mm-hmm. mi ngi ci biir. loi bi ñu ñuy wax ay terrorisme ak lépp. lenn li ko tax a jóg. Mm. bokk na ci tëj Sonko. nangu këram nanguy kontam tas parteem. Eh. loolu mi ngi ci sax dina leer nañ après leeral ko des nag mooy sanctionné. sëñ Muntaxa Mbàkke mm-hmm. ak sëñ Babacar Si mën nga ne maa la ko wax ak ñoom oustaz Aliou Sall oustaz Babacar Mbuub ay ñoom Cheikh Omar Diagne ay ñoom Dame Mbodj seen sanction tamit mi ngi ci biir loi bi. mi ngi ci biir loi bi. waaw Cheikh Bara li nga wax ni garaaw na de yow. mën naa ko naa ko indi ba. ah loolu lii kay jar naa indi bi ko mottali nag mooy jalgati àq ak yelleef yi doomu aadama yi amoon bay dund. Ah. ak sañ a wax li ñu bëgg. Cheikh Bara faram fàcceel bu njëkk bi wax naa ne. waaw obligation la mooy. obligation waaw. waaw obligatoire la woon. Macky Sall. dem assemblée. waaw pour. Euh, wate fa parce que ku ne xam na ne mhm. ci kuréel yu yi mu mbokk ci organisation adduna bi mhm. kuréel yu mag yi dañoo am lu ñu koy jox ngir mu xeex terrorisme waaw soo xoolee loolu obligation la woon ba moo taxoon il ñu amoon ay prisonniers yoo xam ne ay terroristes lañ mhm. parce que mënoo di encaisser nit ñi te indiwoo dara waaw am nañ fi huit prose yoo xam ne ñëpp ay terrorisme lañ leen giñ te boo demee ba ci biir da xam ne ñii duñu ay terroriste bi ci des mooy kon maanaam fii ba février loolu gis naa Cheikh Yérim Seck wax ko ci wax ju am solo. waaw fii ba février maanaam obligation la woon Macky Sall indil. Mhm. indil indil euh, union maanaam euh, kuréel yooyu aw këyit bi wane ne kat jot na maa taxawal lii ci xeex terrorisme. Mhm. loolu benn la. waaw ñaareel bi ci boo gisee récompense am ci mooy dañoo wax ne. lakk ak maanaam mois de mars bi jàll. événement yi fi amoon. Mhm. dañoo lakk ay osan. lakk ay. Euh, euh, nu mu tuddati station totale. Mhm. ak yàq autoroute APS. loolu lépp nag boo ko xoolee. alalu français la. moom la ñuy maanaam entreprise français yi. Mhm. mu demaat ci ñoom andil leen aw këyit bi wanee ne kat lii ñu leen defoon kat. dootu am. Mhm. ndax maanaam donte lakkoon nañ fi seen i alal. léegi ab loi ngi nii bi wane ne maanaam ku lakk seen alal yi. loolu waxatuma la ne maanaam danañ leen tëj. waaye danañ maanaam. ki ay ay ñook ay terroriste lañ yamale laal fi alali français ci Sénégal. terrorisme la mooy. Mhm. maanaam terroriste. d'accord loolu mi ngi ci biir loi feeñ na ci waaw feeñ na ci. Mhm. bi ci des mooy su ma waxee ne ñoom sëñ mun Muntaxa ak ñoom kii. ñoom kii foofu moo garaaw. foofu mhm. boo demee ca biir loi ba. waaw am na ci foo xam ne dañoo wax ne jéem a weñ loxo état. waaw ci mu bëgg a def dara nga di ko ko tere. waaw wala nga di ko forcer na ko defal nangam. comme hmm. ni ñu defoon barki démb dem ci place de l'obélisque sëñ Muntaxa signé ñëpp signé. waaw jullit ñëpp dajaloo ne ko forcer nañ la nga wax ne jigéen góor jigéen ñi ay criminel lañ. Hmm. mu ne loolu ku ko defati. Hmm. acte terroriste la. wala loolu mi ngi ci loi bi mi ngi ci loi bi wala international ñëw. waaw ci biir réew mi bëgg fee taxawal dara mi ngi mel ni ñu ñëwoon tey ne Barack Obama ñëw na fi. pour jëmmal fi mbirum góor jigéen lu mel ne def fi dara am monument wala dara ay taxaw ne loolu du fi amee kooku acte terroriste la te damaa yaakaar ne nag bu dee nag forcer état ak weñ loxoom wala di ko ga li olof di wax ga mooy mooy il faut taxawu ko ci nga def nangam mhm. kooku Sa Ndiogou doo ko def man du ko def sooy bu du ko def loolu sëñ Muntaxa mi yor ay ay taalibe tarixa ab xalifa général ko fi man wala imam hmm. kon waaw loolu noonu moom xalifa général yee ko moom ak wax leen ne dem ca góor jigéen ñi yóbbu kayit wi wane ne kat ñi leen doon jéem a def criminel def naa leen ay ay criminel ñoom ñu ngi nii hmm. maanaam loolu. tontu la waaw loolu lu wér. waaw mooy dañ woon criminaliser leen mbir mi. waaye ña ko waxoon léegi ñoom ñooy. criminaliser waaw léegi nag li ci des mooy. Ah, maanaam wax naa nag ne. Hmm. beneen bi ci des mooy duma sab noonu. duma sab noonu Macky Sall ku ne xam na ne bi événement mars yi jàllee jël na lu ëpp 3000 xale yoo xam ne tànnu leen ci xereñteef tànnu leen ci dara. Hmm. nañ nekk ay ponkal te mën a daw mën a dóor. mu dugal leen ci police bi hmm, kon kooku mu ngi préparé boppam. dem na jënd ay armes. France armes yu bari diggante mars ak tey kon kooku pare na boppam armement Hmm? léegi nag parewaat boppam juridiquement moo nekkaat ci loi bi maanaam hmm. armement ak personnel bi ak juridique maanaam ci yoon waaw bëgg leen bëgg duma te duma yi tegu ci kawu yoon hmm. mi ci biir loi bi loolu dinaa la ko leeral parce que loi ñaar la waaw dafa am lu ñuy wax euh, maanaam projet de loi am lu ñuy wax proposition de loi. proposition de loi. waaw léegi nag. Euh, euh, proposition de loi. waaw amatul depuis Macky Sall nekk fi. amatul waaw gisuguma benn député boo xam ne benn loi wax ne dañ ne lii moom député yi ñoo gis ne dañ ko war a wate ñu indi ko wate ko. waaw waaw dëgg la de loi rek mooy am. projet de loi mooy Macky Sall day tiim mm. ensemble dem def ay yëfam ba mu yàgg mu dem wut ay expert ñu bindal ko loi. Mm. mu adapté ko dem jox ko ensemble ñu wateel ko. waaw kooku nag nekkatul projet. maanaam proposé la ak imposé. proposé parce que bu doon projet kese. Mhm. souvent dañ koy réciter. Mhm. parce que léeg-léeg nga def projet du jàll. waaye imposé la imposé loi. imposé moom lay def ensemble léegi parce que da leen wax def leen lii ñu def. ñu mhm. léegi nag loi bi ñaari ñaari ñaari bopp la am. muy ban ak ban mooy li ñuy wax code pénal. code code pénal. waaw code pénal mooy da ngay ñëw taxaw nga ne réew mi bañ nañ fi sàcc bañ nañ fi jaay dorog. bañ nañ fi euh, triané bañ nañ fi euh, maanaam yu mel noonu. léegi bañ ko bañee ku ko def lu lay def ñu ne dañ lay condamné dañ lay tëj duñ la rey waaye dañ lay tëj mhm. léegi nag tëj bi du caagi ne diw daa sàcc rek ñu waaxu jël ko ci këram rek dugal ci néeg daa di mhm. tëj ne tëj nañ ko kaso déedéet dafa am lu ñuy wax euh, procédure code pénal maanaam code procédure pénal waaw procédure boobu nag maanaam bu dee ci euh, maanaam code pénal bi boo gisee ma koy leeral code pénal bi daanaka moog li fi Abdoulaye Wade bàyyi woon benn la mhm. waaye nag ci procédure ba. waaw fa la jëlee lim bëgg a def ci kaw Sonko lépp ak sénégalais yi fa ko dugal. lan la fa bëgg a def ci biir procédure boobu. waaw. maanaam bu njëkk ba. pour mhm. pour takk der. Euh, ñëw dugg sa kër. dugg sa kër. am na lu daan jëlee ci maanaam benn. mandat daal benn benn benn kayit bu mu daan am. waaw pour mën a ñëw ci yow. dindi nañ ko. dindi nañ ko waaw. léegi dañoo wax ne. Mhm. Euh, officier police. waaw wala agent agent moom nervi bi ñu recruté ba ñu recruté tey tey tey nga xam ne jàngut dara. xamul mm-hmm. dara. Mm-hmm. mën naa nekk agent bi. waaw bokkut ak officier. waaw agent boobu may nañ ko. Mm-hmm. mu dugg sa kër ci waxtu wu ko neex. amatul ñu naan comme tey dañ daan wax naan dix neuf heures vingt heures. suba si ba guddi. ci la am droit ñëw ci nit ki jël si ko waaye bu guddee sax amatuñ ci droit léegi amatul heure. amatul heure waaw. Euh, léegi heure bu ko neexee ñëw amatul heure. bu ci des mooy bu duggee sa kër sañ na di la vérifier nu mu ko neexee wala mu monter sa kër ay ay ay caméra wala lu lay déglu. kon yaa ngi dégg ne. yow li nga wax ni mi ngi ci loi bi. mi ngi ci mi ngi ci ngi ñaan. procédure dem lire ko. waaw ci procédure pénale boo ko xoolee mi ngi ci. maanaam Sonko xam nga amoon na fi problème mu ñu jël ay oto taxaw ci wetu këram di ko yëdd waaw di mu jàpp leen nangu ko parce que loolu yoon nanguwu ko mhm. bii paa nag léegi daganal nañ loolu maanaam daganal nañ dugg ba kër Sonko sax di ko yëddu wala oto boo xam ne Sonko moomu ko waaye dafay faral di dugg wala nit yow moomoo oto bi. Mhm. dangay faral di dugg ci oto bi am nañ droit ñëw monte fa lu lu lay wane ne dañ lay déglu. Mhm. mën nañoo ñëw sa kër saa bu leen neexee. Mhm. mën nañ laa topp dugg sa groupe WhatsApp ba ci sax jël xaalis di la financer comme ngaa waxoon ne nga am def nangam ñu jox xaalis pour nga def ko pour ñu mën a am preuve. loolu lépp d'accord nañ ci. te ñu ne même bu lay topp. suñ doon topp ci ne yow kat da ngaa defoon dañ lay xool ba xam terroriste nga am déet. ñu dem ba ci biir ñu gis na dag pédophile nga. même loolu day duggaale ci acte yi. Hmm. ci biir dal la dugg. léegi li xorom mooy. waaw saa njoogu léegi topp na ma. waaw ba ba dëggal ne man damay jaay drogue mu dee wax ko procureur. waaw ñu ne man buñ may àttee. bu buñ may àttee. Hmm. saa njoogu mi tax ñi téye ma man. Hmm. du ñëw bokkut ci àtte bi yoonam nekku ci. wala bu ci dee bokk. ab kii lay doon maanaam témoin lay lay taxawee. waaw te nu muy témoin du ñëw sax du ñëw ci ci ci tribunal ba maanaam ab kàddoom moo fay ñëw. dañ koy enregistré te enregistrement boobu day wax rek ne moom moom moo la jàppalu parce que gis na ne da ngay jaay dorog wala nangam te kaddu googu noonu maanaam du nekk kaddoom vrai hmm. dañ koy ful comme ni ngeen di defee jomet hmm, comme ni son bi di dañ koy yàq dañuy changé voix bi ba nga xam ne yow daal man daal jàpp nañ ma ci terroriste hmm. wala jàpp nañ ma ci drogue wala jàpp nañ ma yoole ñu ma waaye ki ma tax ma jàppalu ma xaw ma turam xaw ma santam du ma ko gis du ma ko dégg te aw ma droit sax xam baatam mel kon donc moom man man na maa mën na maa jékki-jékki neexal biti ne ko léegi yow wa man jàpp saa njóogu rek ne ko yow léegi jaaykatu dorog nga ku la ko wax nga ne ko mënoo koo xam d'accord foo ko teg mënuma la koo wax hmm. yaa ngi dégg parce que tamit problème Sonko yi yi ñoo ko yàq waaw waaw waaw bii paa rey nañ témoin dootu ko loolu. waaw maanaam xam nga xam nga témoin moo yàqoon affaire bi. waaw bii paa nag témoin daanaka amatu ci solo. ci ci biir bu ñu lay topp ci terroriste nii. Hmm. te léegi lan lañ lay daan. waaw maanaam sa giiru dund. sa giiru bu fekkente ne dañ laa da ngaa def acte terroriste yi ñu wax dund lañ lay topp léegi nag kon nga ne Macky Sall xeex terroriste kon jël na ci jël na ko au sérieux la jëlu ko au parce que ñaar a tax lu tax benn bu njëkk bi mooy bërki démb fii président yi ñi ngi doon def seen seen seen ndaje mañ doon def Gana waaw di wax ci nu ñuy xeexee terroriste moom demu ca woon fii la nekkoon di def tournée politique am bi ci des mooy léegi mhm. ki nga xam ne acte de koy toppee waaw moom dañ koy te mën nañoo nangu këram si siir ko mhm. mën nañoo nangu compte banque am mhm. mën nañoo tas mbooloom comme tey bu doon parti Pastef fa dañ koy tas waaw loolu la ci loolu lay indi mhm. léegi kon ñu ah waa Macky Sall kon lu mu def lu muy def terroriste vrai bi nga xam ne moom dañ ko jàpp muy monter bombe waaw wala mu yor ay bomb ñu ne ko foo jëm mu ne Marseille laa jëm wala santa laa jëm damaa bëgg a exploser nga xam ne mu avoué na ne moom ab terroriste la xam nga ñaata at lañ koy tëj ñaata dix ans ba vingt ans mooy mooy penam kooku waaw te kële moom giiru dundam lañ koy teg mooy Macky Sall léegi moom maanaam taxaw ci taxaw l'obélisque di mars mhm. maanaam moo gën a maanaam moo gën a bon fuuf mhm. nekk terroriste buy rey nit ñi allahu akbar ci biir loi bii loolu sabaara yow loi bi <laughs> bii nga liir wala beneen non li ma wax kay lu leer la ku ko maanaam dem leen ci code procédure pénal bii ngeen xool ko code procédure pénal waaw ci la lépp nekk waaw daf ci bëri ay ay yoo xam ne dëngoowul ak kii léegi nag lii lépp nag soo ko gisee waaw maanaam defut lu dul tiit ku tiit Macky Sall boo xoolee rek xam ne maanaam ku tiit la parce que mm. boo xoolee loi bi bi mu koy dugal xam na ne moment bi ñu toll ngi fëgg dënnam waaw xaaral rek boo xoolee moment bi mu ko dugal waaw da xam ne bëggoon naa bett opposition bi waaw parce que ba duñu mën a xeex ak moom mm-hmm. bi ci des mooy xamoon na ne li muy def neexul nit ñi mm. parce que mënoo jiite Sénégal ne da def lu neex nit ñi ba noppi mm-hmm. wut ay garde mm-hmm. ay police ñuy garde ña koy def. waaw waaw loolu moom booy def lu neex nit ñi. yaakaar naa jëru ko. Mm-hmm. bi ci des mooy. Mm-hmm. Euh, maanaam tiitaangeem moom moo waral muy muy préparé boppam ci yu nii yëpp. Mm. waaye nag euh, yaakaaruma ne lu koy jariñ dara la. parce que ah. man fii laa la koy wax. waaw mi lii muy def nii. waaw ku ne xam na ne moom xoqatal sénégalais yi. ak sax du ma ko nëbbu xoqatal Sonko. ak jéem koo wutal ay pexe waaye xam lan lay lan lay tollool. Mm. kaasu ndox bii nga jël ko baxal ko ba mu bax. waaw nga dem ba ci géej gi nga sotti ko fa nu muy def. sedd du am benn effet. Ah, ah. lii muy def lépp maa ngi lay waatal ci sëñ Touba. Mhm. bis bu demee ba jariñoo ko jot du ko tal. lu tax billaahi wal kitaab bi xam naa ko. Mm. bu demee ba jariñoo ko jot loi yii mu tëgg nii moo tàngalum ndox sotti ko ci géej gi ñooy am seddu guyi léegi def lu tax nga wax du mujj fenn non yàlla loolu yàllaa ma ko xamal du am njariñ mm. gis nga gis nga sanjoogu waaw Macky Sall mënta juddoo ci réew mi waaw am fullay xeex ba jiite ko bëgga a tere nit ñi xeex fulla jëm am ba xeex ba jiite réew mi nit ñi am nañ fullay xeex ba ku liñ bëgg du leen jiite mhm. loolu moom munu munu ko munu ko munu te teema am bi ci des mooy Sonko mii waaw muy topp di rey boppam it dinaa ko ci yëgal dara waaw yaa ngi dégg waaw gis nga Sonko même bu fekkonte ne tey jii la mbiram yem waaw nga xam ne dafa taxaw def ne bàyyi naa politique wala nekkatu fi waaw mu bàyyi mhm. téréewul réussir na li mu doon def mooy fekk na luy nelaw ci sénégalais yi mhm. mu yee ko ba loolu moom yeewu na ba pare gis nga loolu yeewu nag waxuma la Macky Sall waaye mooy folli bépp politicien boo xam ne li nga doon def sa bopp a maanaam sa bopp nga fi nekkaloon. Hmm. dana ko folli dana defar Sénégal idée boobu. idée bi même bu dul bu dul Sonko idée la. idée bi boo xam ne xas na ba yeewu ci nit ñi ba pare kenn mënatu ci dara loolu moom mbay boobu mu may ci nit ñi. jàmm mm. waaw ba ci des nag mooy. di daa di di wax ne. maanaam gis nga Sonko moom. Euh, man damaa gis ne rek énergie bi. parce que man mosumaa gis ñu jël ab ensemble jël député yi jël loi réew mi. jël justice lépp sacrifié ko. pour benn nit. pour xeex benn parti boo xam ne. ñoom yoruñu dara. waaw gis naa ko naan barki démb Jibril Waal nee na benn nit nekk ci réew mi bëgg a jàpp ñëpp otage. <laughs> ma ne ko ko doon waxal foog naa ma ne la Jibril Waal daa waroon wax benn nit nekk ci réew mi tee ñu jàpp nit ñi otage. parce ñoom ñoo ñu bëggoon a def otage benn nit ñoo yàq ko. <laughs> nit boobu nag maanaam moom moo waral xeex bi yëpp du ma ko nëbb waaw waaw ba yeboo ñu ne damaa faral Sonko lépp waaye man. Mhm. lii ma la waxal moo am. gis nga Sonko bi muy doog a ñëw ci politique bi lu ñu daan wax loxo yi setut. waaw. ah waaw loxo yi setut ñu ne loxo yi setut ba mu yàgg <laughs> ñu xool ba xam ne ñu xool ba xam ne tubéy ji set tubéy ji moom xëy na foofu doxut <laughs> léegi ci yéene ji lañ nekk intention yi setut mooy intention terroriste la <laughs> waaw wax nga dëgg léegi nag comme foofu lañ toll nag moom béye boo yomb na noo muñal nee da dañ seet loxo yu set <coughs> waaye ñu gis ni loxo yu set na ñu dugg ca tubéy ja waaye gis ni tubéy ja set na nga ne ñun seet yéene ja <laughs> macha allah sax maanaam jàngat bi am na solo gis-gis bi nga xamante ni am nga foofu faram-fàcce nga luwaa bi toj ko tojun woo xamante ni bii man gisuma journaliste yi sax tojee noonu li nga xam ne mooy loi bi journaliste yi bee boo ñu démissionné sax maanaam jaay borom def gis ñu ñëw ci beneen point boo xamante ni point bu am solo la eh, muy. Euh, ki nga xamante ni kii moom la ñuy wax euh, kii nu mu tuddati Idrissa Seck Idrissa Seck euh, ki nga xam ne moom la ñuy wax président Macky Sall dem na Thiès waaye gisuñu Idi fu Idi ne mooy lii ñëpp di laaj. ak lan moo waral ñëwut waaw am na lu bari loo xam nit ñaa ngi tey dégg nga li presse bi bind Idrissa Seck ñooñam yi nee nañ kilifa la. xam ñoom Omar Sarr ñu ngi leen di nuyu loo gis ci lool waaw loolu moom ci lu gàtt rek maanaam lii doon yoon te xel gën koo nangu mooy Macky sàll ma nga jëm Thiès Idrissa sekk ci politique bi Macky Sall yi doxee mooy kilifaayu Thiès waaw kon nag nit bu jëmee mi ngi mel ne nga doon dem Touba te fekkoo fa sëñ Muntaxa waaw waaw loolu lay nurool maanaam normalement rek Idriss Seck dafa waroon a taxaw teeru Macky Sall mm. léegi nag ñàkk taxaw boobu euh, man nag li ma xam mooy Idrissa moom lu jiitu Macky Sall. di fa ñëw moom moo nekkoon ci terrain bi ko lijjanti. loolu moom xam naa moo nekkoon terrain moo nekkoon ci terrain bi ñuy wax naan dafa feebar moom yaakaar naa lu wokkutub dërëm ju wokku hmm. en tout cas nag jàpp naa wax naa mimi dara dara jotu ko dara jotu ko Max Idrissa lu jotul wokkutub dërëm ja ah bu ko dalul tey jii bu ko dalul tey jii de wokkutub dërëm dalu ko woon loolu moom am naa ci ay ay ay ay ay firnde léegi nag euh, ba xam nag ba xam nag dafa te toog Hmm. bañ a génn parce que dafay bañ a wane ni jébbaluwul ci Macky Sall cent pour cent. Hmm. loolu mën naa nekk. Hmm. parce que bu ñëwoon dana lang dana tàccu dana. Euh, def ay yëf. xay na day mën naa mu am mu réserver boppam. su fekkee nag loolu defu ko ci Macky defu ko ci coobaree Macky Sall. mën nañoo am problème mais bu fekkente ne dafa neex Macky Sall garaawul. léegi nag am na nu muy demee tamit Idriss Seck actuellement nii wax da koo jigul ndax gis nga bi mu waxee ci par ci ci ci affaire Sonko bi. daa mel ne daa a xam bu coow la. te nag dafa am ab benn opposant bu nguur gi. di wax rek di wax di wax di wax ba mu yàgg mu mu mu mu daal di rallier dem ca ëpp mu daal di transhumé. waaw ba mu transhumé toog lu yàgg kenn gisatu ko. comme ni Idriss Seck def ba mu yàgg benn benn journaliste dajeeg moom. Mhm. ne ko waa yow ñun da nga daan ñëw suñ plateau yi taxaw fuñ toll nga yaa ngi suñ buntu télé ak rajo yi léegi kenn gisatu la. léegi mhm. daal lu tax nga ne teel rek mu ne ko man bi may xale sama papa daf maa jàngaloon kuy lekk du wax. waaw xam ne damay lekk moo tax du ma wax. <laughs> xëy na am <laughs> mi ngi ci lekk moo tax du wax ah, waaw waaw waaw. ndeysaan am na ñenn ñu ne tamit lu muy wax waa koñ ba. <laughs> donc parce que dafa yàgg taxaw foofu am noo xamante ne bi noonu gis. Cheikh Bara Ndiaye borom def gis. Hmm. ñu ñëw ci Gloria annonce de hmm. président Macky Sall annoncé na goloria ginnaaw bi mu amee soow moom mu doon mburu ñu war a def poñse gis ni poñse bi manqué na. nee na nag day gën a neex Goloria Goloria nag bu ñu ko waxee joxe ñi dafa bari ñii nee nañ xalifa la ñii ne Karim la kuy Goloria selon yow. waaw xam nga Goloria moom neex naa giñ xalifa. Ah. ndax. moom la Macky Sall seeti woon. Mhm. matagul deux semaine waaw mu génn ne am naa gloria léegi am na amoon naa mburoog soow cere mburoog soow waaye léegi nag gloria bi ñëw na. Mhm. kon xel day njëkk a daj ci ne xalifa la. Mhm. bi ci des mooy bu circonstances yi xalifa tolloo. ci wàllu politique. dafa am ñu yaakaar ne ñu bëree bëri taxab euh, taxawatul. parce que boo xoolee ñi ko bàyyi dafa bari. ndax gars yi dañ ne politique moo gaynde ñoo yem boo amee bëñ di matte ñëppay day ragal waaye boo xasee ba màggat ba say bañ wadd ñëpp ñeme la. xalifa actuellement doonatul dara. ci ci ci dëkk bi loo xamante ne war naa tax nit di ko téye donc loolu mën naa tax mu découragé wu ci boppam mhm. mën naa am itam dafa bëgg a jotaat euh, cas judiciaire am bu normal pour ah, mën a bokkaat ci ay ah. ay ay élection <coughs> léegi nag loolu moom bu dee nag Khalifa Sall moom day dem ci Macky Sall mm. pour jëli cas judiciaire cas judiciaire am loolu moom problème la parce que Euh, mi ngi mel ne nga mi ngi mel ne nga am am xar tubaab mi ngi mel ne nga am am xar. waaw xar mi xiif. waaw nga jaay xar mi dem jënd comme ngooñ. waaw xar nga ne nga. bu demee demee ci Macky Sall pour pour jël fa ay kayitam pour mën a nekkaat candidat. waaw moom nga am am xar xar mi xiif nga jaay ko jëndee comme ngooñ. nga jaay ko ndax ba jëli kayit xar demee jëli kayit yi ba ñëw. waaw ba mën a bokk ci élection. maanaam gaa yi la dul fekkaat ñoom. <laughs> parce que bu àndee Macky Sall yi ba ko ñaara mën a am rek mooy mu dem ànd ak Macky Sall ànd ak Macky Sall. toog fa. comme ni ñoom Idrissa def ay ñoom jibokaak ñëpp dem rang rek. toog ba keroog yàlla lay ñëw. waaw wala nga toog fii opposé wu folle Macky Sall doon dara. ñaar yooyu moo am. ñaar yooyu ak Macky Sall nag ni ma koy faral di waxee jafewu. Mm. Mm. benn contrat képp la. muy ban mooy weddil sa bopp. la nga gëmoon weddi ko te ñëw di wax li nga gëmul. ku ko def àndak man. loolu mooy contrat loolu mooy contrat ñëwal weddi koo gis muy ànd ak Macky Sall. la de maanaam weddi sa bopp ngay def ba mu set wecc. li nga gëmut woon di ko di ko diingat nga ñëw di ko wax. Cheikh Bara li nga jëlal koo ci mën a jël tàmbalee ko ci Cheikh Tidiane Gadio. waaw ma ne woon ma ne woon ànd ak Macky Sall daanaka moo nekk am amu mala la yemale. waaw nekkum mala tey ma nga ak Macky Sall. ma ma nga jëlal jëlal jëlal si Sy. Moussa Sy Moussa Sy mi naan Souleymane Demba Ndiaye jëlal Idrissa Seck. weddi la mu waxoon jëlal euh, Omar Sarr. weddi na la mu waxoon jëlal Babacar Gueye. weddi na la mu waxoon koo mën a jëlal ci ci ci ñii ma la wax. waaw weddi sa weddi sa waxi démb. Hmm. maanaam li nga dëgg gi nga gëmoon ngay weddi ba mu set. wecc di wax li nga gëmoon waaw te na ne li ngay wax li ngay wax nii li ngay saxal nii. Hmm. wérut la nga weddi mooy dëgg. loolu mooy ànd ak Macky Sall waaw ku bëgg a bàyyi Macky Sall tey tey tey tey waxal li nga gëm ci sa bopp boo baa boo ko defee maanaam coalition weddi sa bopp la coalition ah. ku attan loolu rek demal noonu la war a tudd lu yomb la wax nga dëgg ñuy weddi seen bopp. waaw ah coalition man de dooma ci wan nit. Mm-hmm. koo xam ne mu ngi ànd ak Macky Sall te nam lam doon gëm démb moom la gëm tey. waaw saa yoo paree ànd ak Macky Sall daal dangay ngay weddi la nga gëmoon ni ñëw wax li nga gëmul. loolu wér na waaw.